gis li jullit yi am jullit yi gis ko mu nekk ak yokkute ci ñun ndax li imaam Ahmad daan doon wax léegi yi ëpp ci àdduna ci ak moom dañ koy propagande rek ba yaakaar ne baax amatul léeg-léeg nag ñi baax itam mbir bi ñi nga xam ne moom lañ am dañ koo war di séddoo ci fànn boobu moo tax bi mu waxee oustaz Mouhamadou Amine ne dafa bëgg a tuub mu ànd ak moom indi ko fii ci jotaay bi ci kanam sëriñ si bu ko defee ñu tuubal ko mu euh, dugg ci diine ci bi imaam Ahmad daal di wax am na ay kilifa yu bari yoo xam ne dugg si leen ci jotaay bi dinañ leen jukki waaye bala ñoo kii dina sori dañuy jox imaam bu ko defee mu daal di euh, Oustaz Mouhamadou Amine waaw anam ni ko indi nañ indi ci war a dugg mu ñëw bismillah takbir takbir allahu akbar ñu jox Oustaz Mouhamadou Amine mi mu woowoon bëgg a dugg ci diine bi mu dalal ko ñu jox imaam yi ñu tuubal ko àggali jotaay. waaw ah, na ko tuubal rek na ko tuubal foofu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa rahmatulah. la àndal. depuis quelques jours mu wax ne dafa bëgg a tuub dafa tuub nag day am seet ñu bëgg ko comme des bi des yu am solo ci diine bi ci réew bi ñu ne leen bàyyi ba ñëw fii tey Oustaz Alioune Sall tuubal ko. sax bi lay am nga tuubal ko incha allah. jëlal bi boobu jëlal ko taalal ko. alhamdulilahi rabbil alamin uh, lii mooy da nga def loolu sax daam. waaw moom ñu mën la koy. dëgg la dëgg la. dañuy barkeelu yan tamit. ñu ne bu tuddee baa ci seede mën na koo tudd ku dugg ci diine. Hmm. xanaa wax la ay baat rek benn baat bi mooy boo ci xasee dugg ci diine bi bul jàng sa diine ci mbedd mi bul yem ci li ci mbedd mi jël sa bindukaay ak sa këyit dem ñu jàngal la diine incha allah loolu li ci jiitu la ca tege mooy bul jàpp ne ñuy wax ñëpp ay jullit la ñooy say royuwaay ba mu baax wax Muhammad mooy nekk sa royuwaay incha ci diine ñu ne luwaay man ci ki doon tuub su boobaa dañ la bëgg a jàngal suñu diine ji diine toroxtaane la bu ko nangu wut ab mbaxana topp nit ñi naan luwaay man ci ki doon tuub dañ laa bëgg a wan ne diine ji diine torox la waaye diine diine torox la liggéey la. dëgg la ak jàngal jàngale ak tege ci ñu wax fi léegi. loolu la ci des ba ci tegoon mooy prix bi nga xam ne ku dugg ci diine da nga koy am mooy bis na ko tey boo ñibbee ci say bokk boo moytuwul am ku ne dugg na ci diine je kala mayoon ni la la indi sama mbubb kii la la samay dàll tas sa jabar yàq liggéey waaye loolu prix la dañ koy dañ koy muñ ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun loolu daal bu du hmm. ay tomb sax yóbbal la ku dugg ci diine nag da yëg ne yàlla dafa yónni woon ay yónent ñu doxal di doxal ba Isaa ñëw bi muy dem mu ne leen maa ngi dem waaye jamono ngi ñëw am na kuy ñëw yaati ñu baax di ismuhu ahmad Ahmed moomu nag tey nga bëgg a nangu ne moom it yàllaa ko yónni jéem bu mu war a desawal waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amantu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula sa baaraam jur na ñu tey nii comme mu des nag noo tuddoon ah Bernard Mendy nee Bernard Mendy la tuddoon noo bëgg tudd léegi Omar Omar Ndiaye nee Omar la bëgg tudd xanaa Omar Mendy waaw léegi xamal mooy ñaareelu de. na jàng nag sa turandoo woowu. incha allah du lépp. léegi nag su jógee mbokk yi Mouhamad Lamine Daraame la ca tegee xam nga ko te mooy wat ko te mooy jàngal ko jàpp te mooy jàngal ko sangu jërëjëf kon nag ñu ngi say loxo nooy sa sëriñ.